xam nga euh, wax ak jëf bokkul wax naa ko démb. Mhm. ci seen benn benn rajo bu nekk fii ma ne kilifa sa bari wax ñu loolu lañ xam. day mhm. burum kër sax doo bari wax. Mhm. ndax wolof dafa ne kuy ku miin say wax yab la benn. beneen bi mooy boo peut-être yow sax doo ko fàttaliku mais en tout cas ñun ñi xam ne ñoo jàngoon nekkoon lycée dans les années soixante-dix quatre-vingt. di nga proviseur bi mën ngaa def si sixième ba terminal doo ko teg bët. maximum censure ngay gis ak surveillance générale ça veut dire bu njëkk kilifa daawul nekk si mbedd. Mhm. bu xoolal ministre su Senghor daawu leen gis. daawu leen dégg bu njëkk wax naa ko démb. lu bari si problème directeur mooy jóg directeur du ministère mooy jóg dox ko. 2000 mhm. rek ngay commencé gis. avec Wade. voilà mhm. ministre buy jóg lu xew mu jóg taxaw ba banaliser fonction bi maintenant nag. yegg si nañ fa woo xam ne c'est le premier ministre ndax boo xoolee démb euh, astafurlah euh, barkaati démb je mhm. crois barki démb euh, bi muy dem Colobane xoolal ni mu solo benn si premier ministre maanaam ah, gars yi col gi dafa dafa oyof premier ministre boo ko xoolee mhm. dafa mel ni kuy dem si meeting Parcelles Assainies mhm. alors que c'est le PM qui allait à la rencontre des war ko koo xam ne boo ko xamul boo ko gisee rek nga ne kii mooy PMU Sénégal. Mhm. loolu moom mooy yoon beneen bi mooy wax ji mais man bu doon si ñi koy digal laa bokk. Mhm. dama koy wax ne boo demee boo visité bul wax. defal constat bi rek dem. defal constat bi boo ñëwee conseil des ministre suba nga wax li nga war a wax ñu def ko si communiqué bi. Mhm. mais dafa mel ni moom bari na li tubaab di wax jikko ju rafet ndax am na wu fit am na am na wu <laughs> kenn du ko kooku mais dafa am ñaari jukko yoo xam ne moo koy yàqal lépp te dinañu ko waxi ëllëg mhm. mooy bugg na mbooloo ful li ñuy wax agorophilie bugg na mbooloo xoola ñett yoon génn na ko ça lui réussissait bien bi mu nekk dans l'opposition waaw mais boo doonee premier waroo ko def dem na fi université dem na fi euh, waaw defar na fi benn kii euh, euh, grand théâtre beneen bi dem na Colobane mhm. ak Anse Bernard bi beneen bi mooy li ñëpp di wax moom nga mhm. wax moom laa wax ñëpp la wax na wax ji na néewal wax ji. donc ñaari jikko yooyu daal bu mënoon góor góorlu ba xeex ak ñoom en tout cas njiit loo xam ne euh, dinañu ko yàgg di wax. fii téeméer ñaar téeméeri at.